Assane Samb ñu ngi lay nuyu yow yaay euh, directeur de publication bu mi Quotidien nekk itam analyste politique am nañu mbégte lool dalal ci matinalu tey bi Fatou ñu ngi lay fay di la nuyu di la ziar baax di nuyu auditeurs yëpp personnel réew mi réew mi FM. alors euh, ñuy waxtaanee tey euh, doyen euh, wàllu politique ci sous région bi surtout ci Sénégal seetlu nañu ne xëy na coowal troisième mandat mi ngi tàmbalee laal réew yu bari mais surtout Dofina ñu koy waxtaanee lu bari même fii ci Sénégal Dofina mooy xëy na booy jóge ci nguur gi nga wut koo xam ne moom moo la fii remplacer alors ci sa xalaat lan moo waral njiitu réew yi Afrique yi général ku leen wuutu gis nañu ko ca Côte d'Ivoire malheureusement que ñu tànnoon jóge na fa euh, ca Mauritanie itam def nañ ko fa waaye xëy na lañ ca doon seenu mujj te demee noonu ñeel président ba fa jóge waaw Fatou jërëjëf di ginnaaw bi mu nuy waatee bu baax auditeurs yi Rewmi FM di fàttali rek olof dafa yàgg wax ni ku iñaane sa ndono sa deewi ñaaw dee dee politique fii mooy nga disparaître façon boo xam ne doo ko bëggee noonu euh, loolu la ñuy bañ loolu la ñuy bañ moo tax euh, scénario bi système bi ñu ngi ko jëlee woon euh, Russie diggante président Poutine ak ki nga xam ne mooy son premier ministre Medvedev bi Poutine jeexalee ay mandat mu xam ne mënatul toog constitutionnellement dafa bàyyi premier ministre Medvedev mu mu gagné élection yi moom mu nekk premier ministre xam nga président bu nekkaat premier ministre waaw xam nga loolu euh, le temps que Medvedev jeexal mu ñëw gagné waat yi moom Poutine toogaat. voilà gis nga système boobu ñu ne ah kon lii kat c'est intéressant xam nga Dofina moom yàgg na fi Sénégal sax xam nga diggante Abdou Diouf ak Senghor presque article 35 affaire Dofina lañ doon wax donc yàgg nañ ko fi wax mais façon bii am léegi euh, amul woon bu jëkkoon léegi da ngay jeexal say deux mandats te doo bëgg a jóge pouvoir nga bëgg fee jóge ba pare nekk fi maanaam da nga fiy bëgg a jóge ba pare ne fi léegi nooy def ngay naa fi teg ki nga xamante ni bu fi toogee day mel ni maa fi toog mm-hmm. waaw kay wala boog li ma bëgg lay def wala boog ci la ma nekkoon lay nekk wala boog du ma sonal sama du ma sonal sama ñoñ loolu mooy stratégie bi ñu xool en république démocratique di Congo euh, président Kabila bi mu jeexalee gars yi naan yoo Kabila de du dem coow li bari mu am euh, Félix Tshisekedi gagné mais gagné Tshisekedi c'est c'est zéro ah parce que mënulul dara Kabila Kabila contrôler quatre-vingt pour cent assemblée contrôler quatre-vingt pour cent du gouvernement kon comme xam ko ko mënuloo ko lu bari Mauritanie nag la affaire bi doxul parce que bi nga xam ne président ni ñëw na daaw ci élection yi je pense que c'est en avril 2019 euh, euh, da da dafa jël ay responsabilités daal di nekk nag chef d'état nag toog ni faax nag daal ni Aziz toogal fa lay jàpp sañu ama man toppatoo ma la ba pare nag jël ñu ni déetawaay ñu jote noonu ci parti bi mu wan ko ne du nekk sa ginnaaw ñu ni déetawaay mu teg haute cour de justice haute cour justice rek moo mën a juger président la République ak ak yi pour haute trahison. kon moom wane na fa mu jëm. fa mu jëm xam wane mu ñu ne déeta mu def commission parlementaire d' enquête commencé enquêter ñoom seen gestion di wax ay gabegie ay corruption kon xam nga xam wane nañ fan jëm. gars yi yeneen chef d' état yi doon seetaan watara war a jeexal ay mandaam euh, Condé war a jeexal manda bu Guinée Alpha Condé Macky Sall Sénégal war a jeexal mandaam ñu ne ah, kon nag nañ ci tey dafinaa bi kat daa mel ni doxul bu baax kat mën na bañ a dox ndax boo juumee ci ki nga tànn mën na indi problème moo tax euh, Côte d'Ivoire bi nga xamante ni Ouattara tànn na ki nga xamante ni mooy amadu Gon Coulibaly léegi euh, mu gaañu malheureusement yàlla na ko yàlla yërëm euh, léegi nag mu indi problème Ouattara ni moom day toogaat parce que Ouattara sa premier position moo doon bu ñoom Bédié ak bag Gbagbo nekkee candidat man dinaa nekk candidat loolu la jëkkoon wax ba si yàgg mu ni non non sax nekk candidat parce que booba gis na Koulibaly mu ne mu xalaat ni Koulibaly mën na gagné élection yi te moom wóolu na Koulibaly léegi nag comme Koulibaly gaañu na Côte d'Ivoire bari nay cadre parti Ouattara bari na cadre mais nag confiance ba am amul confiance ba ca war moo amul moo waral nag mu mu nekk mu mu dellu ca lañ doon xalaatal euh, Alpha Condé bu Guinée loolu mooy indi donc Dofina baax na ci kaw lenn nga teg ko ci institution nga fexe ba sa parti am numéro deux loolu mënul ñàkk parce que nit ki tamit ne pas éternel du da nga fi toog toujours ba pare doo wér toujours ba pare doo fi nekk toujours kon dafa laaj boo dandoo tuuti rek am ku toog mais fii Sénégal gii boo créé sa parti yaay boom yaay bummi yaa fi ne boo tukkee sax parti bi taxaw ci parti yu mag yi mais aussi ci parti yu ndaw yi yaakaar naa si parti yu ndaw yi sax gën a garaaw far foofu moom chaise yi yaay yaa koy rangale <laughs> donc donc c'est un problème sérieux il faut ñu wut numéro kooku assumer ses foogoon nañ ne à un moment donné AFP réussiroon na loolu avec Malick Gakou mais on s'est rendu compte que euh, Niass depuis Senghor mu ngi ci pouvoir bi ne yàlla na fi yàgg te wér waaye nag wax dëgg yàlla politiquement nag war na xajal gars yi nag temps yi ñoom mbay joon nag yooyu ñoom tam bëgg nañ mos donc yu mel noonu loolu loolu moo tax ni gars yi bëgguñu numéro 2 mais numéro 2 moo leen arrangé. Macky Sall te mel ni ku roy ci loolu dindi fi numéro 2. waaw carrément Macky Sall sax moom dèjà musul am numéro mais ñëpp nañ doon njort ni bun Ablaye Dione nag. moom wër na premier ba sonn amul mu gis bun Ablaye Dione bun nekk taalibe takk ndiggam di xeexal Macky Sall di di xe di bëre mu xëy naan fast track fast track bi aw lay kese la danoon bañ ñu xam fa mu jëm mu ñu ñu naan kii mooy numéro deux parce que premier ministre naturellement moo war a nekk numéro deux mais bu ko fi tegee dañ naan kon kii mooy numéro deux te bëggul Macky bëggul numéro deux li tax bëggul numéro deux nag moo ko xam parce que mu ngi ci ay pexe waaw mu ngi ci pexe li tax yaakaaroon na xëy na pour éviter coow yi ci partem la. ban coow ku fa coow mu rëq sa ndigg moo gars yi dañ kaa ñemee day wax rek ban coow ku fa coow xam kenn ñemewu ko foofu dañuy wax day wax rek moom ci boppam moo coow lu fa am moo ko fa indi même gars yi doon attaqué Amadou du baax Mimi Touré moom la bu du woon moom kenn du wax problème yi loolu moo ne ci suuf co ah éviter wul coow de moom mooy bañ ñu xam fa mu jëm. sa xalaat Macky fan la jëm ak ñun. fa mu jëm nag APR euh, bu ci bokkee tamit du nekk en première ligne AFP noonu PS noonu neen configuration la ñuy andil parce que am na deal bu am diggante ay Ablaye Wade ay Idrissa Seck am na lu ñu waxul médiation am na la xalifa général des des def na médiation Alpha Condé def na médiation keneen ak keneen def na médiation mais médiation yooyu kenn xaatu si ba Ablaye Wade waaxu dem ba pale yow imagine nga Ablaye Wade waaxu ba dem ba pale ah def ay communiqué conjoint xaw ma lan ak lan nga xam ne am na lu xew beneen bi mooy 5000 kits yi nga xamante ne de santé yi nga xam ne Karim Wade envoyé na ko du Qatar ñu réceptionné ko officiellement fii te ñu ne Karim da leen xaw ma Qatar xaw ma nga xam ne am na lu am na lu ñu ngaa gis benn communiqué réunion du du bureau politique du parti ana communiqué yi PDS amatul ya yaa am am na loo xam ne waxuñu ñu ko te Macky mu ngi ci dynamique yooyu. dynamique teg benn genre kii bu bees système bu bees boo xam ne ñun amaguñu élément yëpp pour mën a xam dëgg-dëgg lan la parce que dañ ko laax ñoom ci diggante leader yi la opposition dëgg-dëgg mooy leader yu mag yi noppi nañ opposition amu fi Macky neutraliser na euh, tout ces trucs la ñëpp day war a nekk contre pouvoir ak opposition véritable kon préparer na le terrain pourquoi est-ce que day toogaat wala est-ce que day utiliser beneen élément bu dul élément bu jóge APR loolu mooy yaakaar nga par exemple ku mel ni Idrissa Seck wala mu jógee ca ñu doon ñi nga xam ne ñoo ko fi. parce que am na ñu naan ndax parce que man xam nga may waxtaan ak ñoom. am na ñu naan wëy euh, euh, Abdoulaye Diouf Sarr ñii ni non non waa ji le ministre du budget euh, kii Abdoulaye Daouda Abdoulaye Daouda Diallo scénario yëpp ñu ngi koy wax mais est ce que. ma nañ fi tam wax Mansour Faye. Mansour Faye est ce que Macky mu ngi si dynamique yooyu c' la question je pense que daal def na tout pour xamuñu fu mu jëm. mais xoolam nekkatul forcément ci benn bokk yaakaar ah mu ngay xool faneen te faneen fi muy xool jafewul a xam parce que waa PDS ñu ngi ni nuut te waa PDS yaruwuñu googu yaru euh, respecté naa leen loolu nag amuñu boobu yar nii ni muut nii déedéet daa am lu ñu log bu ñu logul woon dara ñu wax Idriss rek partem colonel Kébé moo mujjee mer pourquoi ku sax Yankhoba Seydi ñaawlu woon na ñàkk réunion yeeg ah. ñàkk daje yi ne parti bi fi mel ni lu dee explication te médiateur bi mais médiateur principal laa ko mën a tudde sax muy xalif général des mourides yàlla na fi yàgg te waxul merul de ci médiation bu ci gisoon lu mu lu lu lu mu xamul kon xëy na nga dégg ko kon am na loo xam ñu ngi koy préparé mais ñun xamuñu ko mais mag yi lépp lu mu fi lu mu fi nasoon rek am na institution de contrôle yi ngay gis ñuy lapp-lapp nii yëpp kenn déposé fi rapport bi ay élection amee référendum rapport amul parrainage rapport amul législative rapport amul présidentielle période yooyu yëpp benn rapport génnul. IGE daa dajale ñeent doo ah, boo ko génnee xam <laughs> ko koy réceptionné du la ko du ko jël du leen faale du jël. léegi nag loolu loolu mooy la réalité cest à li ma bëgg a wax foofu exemple bi ma bëgg a jox mooy lu mu lu mu fi bëgg fii fii xaw ma rek xaw ma beneen période de mais période bi ñu nekk nii lu mu fi bëgg da koy def bi mu nee nañ leen voté référendum 2016 ñu ñu refa muutul ay moom moo def point yi de xam nga kenn saxalu ko tàngal mu defal ñu point point yi la ko ci neex la appliqué la ci des appliqué ko te peuple bi mu na fi statut de l'opposition est-ce que def na fi chef de l'opposition nee day réduire son mandat ñu wote ñu woteel ko sur la base sept ans cinq ans mu ñëw instrumentaliser le conseil constitutionnel dóor sept ans jaaxaan daal di di laaj les teg le waaja naan mu mus musaat donc donc donc mais li mu bëgg da def léegi bu ñu continuer si dynamique bi mu maîtriser maîtriser les forces religieuses maîtriser les forces politiques maîtriser la société civile lu ci deseti ñeneen ñi ko ci wax ñun la eh, toogal sa la da nga dul génn sax parce que dañuy taxaw ci mbedd ma kar la alors léegi li xew Mauritanie par exemple ñu proposé leen dauphin ñu nangu ko voteel ko même bu dee dauphin bi moo ñëw ba yegg si daal di soppi doxin euh, fu mel ni Côte d'Ivoire tamit euh, xëy na mënoon naa dox bu fekkonte ni Gon Coulibaly euh, yàlla jëlul bakkanam mais fii ci Sénégal yaakaar nga ne sénégalais yi ak ni ñu leen di déggee ñuy wax bu bu fi Macky indi woon kenn danañu ko faale est-ce que kon dina jël risque indi fi dauphin ndax yenn saa da nga dégg nit ñi naan du moom moo ñuy wax ki ko fiy te itam booy xool day mel ni dañoo xaw a réticent ci côté boobu ndax euh, foog nga ni sénégalais yi dinañ nangu loolu et tamit mag Macky dina jël risque di fi teg dauphin. Euh, Fatou eh, sénégalais yi comme ñoo nangu ba fii augmentation courant lu ne kon dinañ nangu leneen parce que fii bu njëkkoon lu taxan su Ablaye Wade moo amoon opposition forte dans la rue parce que simplement. dañ yooyu yëpp dañ ko organiser financer ko dañoo foogoon ni c'est par hasard c'est pas par hasard noonu noonu ñu songewoon Ablaye Wade noonu ba ba jëlee ko fi loolu du paroon hasard loxo bitim réew moo fi nekkoon tubaab yi ñoom la Ablaye Wade arrangé tur woon ñu actionner les mouvements en interne fii ci Sénégal financer l'opposition dama ko si yokk bu baax a baax. mu am doole financer la société civile. ñiy manifester chaque jour ñun la Ablaye Wade nangam lu ñu doon waxal Ablaye Wade lu ko raw am na fi mu nekk nii ana ñu ñoom te ñu ngi fi de les mêmes personnes ñu ngi fi lu tax waxuñu parce que France Macky Sall arrangé na ko États-Unis Macky Sall arrangé na Chine Macky Sall arrangé na ko de suite loolu moo tax nga foog ni situation bi dafa changé. mais situation bi changé wul li fi li fi newoon lu ko raw a fine lu ko raw léegi nag la la changé mooy euh, tubaab yeeg daan euh, xeex euh, joxe ci seen xaalis ci suuf ak organiser yaa ngi dégg la déclaration Lamine Diack ainsi de suite réseau yooyu ba ci le milliardaire américain George Soros mu ngi woon Sénégal gi di financé gars yi ah ñoo ñëpp téye nañ seen loxo moo tax affaire yi nii nem loolu loolu voilà ce qui a changé pour man la reste mooy léegi kon Macky Sall gannaawam gannaawam ba Euh, ba nang jeex na donc loolu mooy la situation le Sénégal maintenant peuple bi dafa laaj catalyseur koo xam ni mooy taxaw di catalyser les force Ousmane Sonko mënu ko. dynamique boobu si si jéem na travail na ci liggéey na ci jàmbaar la parce que mu jógee euh, partem nekk parti bu ndaw mu agsi fii tey loolu liggéey la mais liggéey bi dafa des. faut mu continuer euh, c'est plus président jeune la jeunes yi gën a bëgg jeunes yi ko gën a kii mais Sénégal dafa am nu muy fonctionner il faut que également nga maîtriser yenn lubi yi yenn force yi surtout yenn mag yi nga fexe ba jubóo kilifa diine yi ànd ak ñoom ànd ak les grands mouvements la euh, pour nga mën a gagner des élections et te je pense que liggéey boobu il faut que également au niveau de de l' état major Ousmane liggéey boobu ñu koy def et surtout mu gën a inspirer confiance c' à dire bu ñu jàpp ni président boo xam ne bis bu fi ñëwee ku wax rek mu dóor wala ñu jàppe ñu gisee que image boobu parce que bu ñu ko gisee image boobu dañuy ragal euh, parce que Abdoulaye Wade pendant longtemps image boobu da ko topp parce que dañ ko doon dañ nax population ne non kii moo Kadhafi lay àndal Libye euh, nit nitu histoire la euh, boo waxee mag ñi ñun la awlaa nitu histoire la ainsi de suite donc bi mu nekkee président gis nga du du nitu histoire du tout donc yu mel noon dañ ci war liggéey je pense sur le plan de la communication le plan de la démarche politique stratégie politique mais daal li wóor moom Macky jusqu'ici man gisaguma actuellement nii lu koy jaaxal ci Sénégalais yi te lijjantiwu ko te ces histoires de fichier électoral dama koy waxaat de fichier électoral bi c'est pas clair de cette histoire man gëwuma ko gis nga bi depuis bi ñu indee le vote électronique faatu ci Afrique gi ca la caac caac mu ëppee xam nga ñu naan élection kenn woy kenn na ko sàcc woy woy kenn non mais attends informaticien yi fii lu ñu dul def waaye fii élection yi kenn xamul euh, voilà fichier yi nañ ko xii à la présidence man maa ko wax fichier yi te nag xam nga du ma du ma wax li ma xam lépp fichier yi nañ ko génnee fichier yi nañ ko génne parce que c'est pas clair hein cette histoire de fichier la te tant que Macky moom euh, mën ngaa gis ko ko gagné élection bi ñu fi toogee ba léegi ku ko fi gagné euh, te bu ñu noonu lay continuer nag man gisaguma lu ko fi dindi fii nii Sénégal gii ak nag démarche opposition bii nag nga xam ne mooy nooy neex nooy neex mel ni rek dañu anesthésier maanaam dañu nandal benn nàndal boo xam ne ñépp far dañu dem nag di nelaw nag bàyyi président Sall moom kese ñu ngi lay gërëm Assane amoon nañu mbégte lool dalal ci matinalu réew mi fàttali ni yow euh, Assane Samb yaay directeur de publication bu réew mi quotidien analyse politique nga itam amoon nañu mbégte lool dalal la. waaw jërëjëf Fatou euh, mbégte mi si man la ëppee ñu ngi nuy surtout auditeurs yi leen encouragé nag ci seen liggéey bu am solo bi ngeen di def leen félicité bu baax a baax.